ndeysaan dañ koy neexal ba mu neex waaw waaw yàgg na ndeysaan Alioune Junior moo ngi ne waaye dañoo tung dañoo tingoom ki nga xamante ne mooy Siteu bu Ngor dañ koo tingoom lay wax Siteu liggéey na mooy Siteu xoolal par rapport combat yële daa xees fecc mais combat bi ko ni mu ñuule boo demee liir la mu defoon liiraat combat bi di nga xam ne bi mu demee Maroc ak léegi yokk na lu bari bu ma la tey avantage ñaari mbër yi lan nga may wax avantage yu ñaari mbër yi mooy kii mu bàyyi ak Siteu combat bi liir ko Siteu bu juumee mu corrigé ko bu juumul mu def xool fan lay jàpp mu jàpp fa mais bis bu jéemee fekk booy bi si rythme am booy mën na kaa daan ba romb ko ndeysaan kan ma war a diriger ah nekk loo xamante ni lii laa naan mbaa mu géwal ku ko sàcc jaay ko lawbe bu feeñee bu saban coow. déggal lii huit derniers combats yi mu bëree. waaw huit derniers combats yi mu mujjee bëree. waaw benn victoire la ci am sept défaites. maa la wax loolu déggal loolu. xam nga ni kooku instant bi situation bi dafa dëgër. maa la wax lii te bu ngor mësul daanu. merci boo ko daanee tey da lay yóbbu. te bu ngor mësul daanu. te booy boo xamante ni boo ko daanee da lay relancé ci làmb. Seydina. Mhm. te li si fukk ak juróom mooy booy bi yorul bagage yi ko dee. waaw gis nga loolu. yàgg naa leen koo wax. gis nga loolu. mais xam nga ne Alioune Seye tey daan rek ko war. gis nga li mu sensibiliser. oh booy bi yow. nee naa la xale yi dañoo ñëw pour sif lamb ji. dama leen booy yi tuddee seen bopp yëpp Siteu. waaw Siteu bii moo si gën a sax Siteu. waaw waaw beneen affaire la. beneen affaire la kanam ngeen koy xam. yàggatul léegi léegi léegi moo tax su ma namee Souleymane damay ñëw ba. di fa yëngal ba muy neex. ndax si laa baax. bi gars yi ne bi gars yëpp bañee moo ma fa fekk ak ay coup na ma foo jaar suukar koor gi. ma koy gërëm suukar Souleymane mi. ak ay si suukar koor. yéen eh, la la loolu waxuñu ko de. loolu loolu da koo newoon bul ko wax. ndeysaan mais man laa ma maa mel ne ku la teral nga wax ko. waaye ku def lu baax ci réew mi ñu wax ko. sagam ku def lu bon ñu koy xëy di ngaw ngawee. waaw gën ku def lu baax. Souleymane fa nga jàpp foofu la. Souleymane. kenn du ma. la Fatou Law bay woyoon. Souleymane Souleymane Amadou Badio ndeysaan. bilaay walaay. bopp la ko waree doon ndeysaan. ndeysaan Souleymane. Souleymane a ngi naa dégg woy. waaw waaw. ndeysaan Souleymane a ngi noonu borom yëmbal. Souleymane lu baax yàgg naa dégg lu baax. ndeysaan. si tali ko arrangé si combat combat bi mooy mu bagaar Siteu bu bagaaree day am dara mais bagaar bi bu mu bëgg a jàppante bagaar bi na koy toll fële di ko góos góos góos bu booy bi déranger mu mu duuma ko mais bu léegi bëree loolu day am lu bëri mais Alioune Seye li ko arrangé mooy mu fott góosu Siteu liir ko jige ko. ndax njool la njool da nga koy jigee daan waaw waaw boo ko éperculé am dara boo ko marto mu jeexal mais bis bu defee combat sore mën na ñàkk combat bi si erreur maa la wax loolu attention attention lu waaye doon jaay mu la mu dee at bi baa wax ak ñaari mbëri la lamb di bañ ak lu lamb nangu ndeysaan Siteu bu ngoon Alioune Seye arbitre ba sifflé na waaw waaw nee naa ku sa di jàmbaar doo daw xare ñoom ñaari mbëri daw ñu xare ndeysaan estade baa ngi estade baa ngi riir ndeysaan waaye yëmbal toogatuñu waaye ñi nga xamante ne mooy waa Ngor tamit toogatuñu ndeysaan cey làmb ndeysaan ba tey dara xewagul sawaay lii xeeñ ñi xalaatuma ko si. ndeysaan bu visa bi. mooy waral xeeñ ñi. ndeysaan mais Alioune Seye du ko da koy jeexal. combat stratégie. waaw waaw. Alioune arbitre nee leen. mooy yoon combat bi benn jàpp la. benn jàpp laa ko teg benn jàpp la non daanaan nga. déggal ma sama ko nga. ndeysaan yaa ko xam wóorul Saly. oh, oh wóorul Saly. moom it Youssou way na ko. ndeysaan lu mu wax. Saly Mata Saly Mata. waaw waaw yaa ma tere ne la. oh to to to yow rek laa bëgg ndeysaan.

Ngor ndeysaan ak ki nga xamante ne mooy Siteu bu Ngor waaw ñoo ngay leetoo Saliya ndeysaan ñoo ngay leetoo ba léegi ndeysaan ba léegi de waaye nag yeewi askan bi ndeysaan ñi fiñ dëkk dafa sori dafa sori de dafa sori su ba léegi terrain bi. <laughs> ba tey ñu ngi a dee. waaye di kontaanee ki nga xamante ni mooy promoteur. ndeysaan petit promoteur jàmbaar la. oh oh xale la ci de. ndeysaan waaye moo ngi def li nga xamante ne mooy preuve ci làmb. ndeysaan ndeysaan di ko jaajëfal di ko encouragé di ko wax mu gën a jàpp. mu gën a jàpp làmb métti na. métti na waaye boo si duggee. ndeysaan da ngay jéem a atteindre li nga xamante ne mooy sa objectif. waaw loolu dafa leer xale bu ko defee nga bégal ñi nga xamante ni. ñooy say fan si. bu ko ah, nga ñëw ci ñi nga xamante ni ñoo doon wax ni ah du dem. du dem ah nga jëflante ak ñoom ci li nga xamante ni mooy résultat. xalil dara boo ci nekkee boo ko gëmee rek réussir xanaa nga bañ koo gë bañ koo ah, gëm waaye lépp loo gëm rek yàlla suñu borom bu la see jàppale petit promoteur mii na ko lam bàyyi xel moom tamit. ndeysaan arbitre ba averti na ñaari mbër yi. ndeysaan day tax ñu bëre ak ak ak Siteu bu Ngor. laalante. ndeysaan faa ñu dalante Saliya foo ñu dalante waaw bu ñu dalante ndeysaan coow li jeex buntu ubbeeku buntu ubbeeku coow li jeex ndeysaan nee na li benn lay doon mais ndax poids bi Aliou Seye junior yor ndax dina ko arrangé si li nga xamante ne mooy vivacité rapidité non gaw a dina ko arrangé parce que ko ëpp poids trop mais tamit est doole bi euh, am Aliou Seye ndax am na ko loolu tamit naa laaj nee naa la lii benn congo bu ñu mu jeex aca Siteu bu Ngor ak Aliou Seye Junior ba dara xewagul Siteu nee naa leen ki nga xamante ne mooy Alioune Seye moo ñu woon ginnaaw moo ñu woon ginnaaw ndeysaan waaye Siteu bu Ngor moom lañ jàkkaar loolu noonu Sariya ndeysaan moom lañ jàkkaar loolu noonu ndeysaan ñoom ñaari mbëri ñoo bokk même pied buñ teg moo tax du yomb ndeysaan ñoom ñaar ñoo bokk même lu ñu teg du yomb waaye Khalil stade bi nee na tekk di déglu toogatuñu tëggkat bi rek ngay dégg muy tëgg boo demee seen kër yi sax toogatuñu ndeysaan laay laa jël la tànk ba laay ñibbi waa Ngor a ngay ñibbi ndeysaan xoolal ma Siteu Siteu jommi na xaaru woon lii tey ndeysaan waaye champion la ndaanaan la laamu kuy bëree daanu ndeysaan Siteu bu Ngor am na. billahi billahi ñëpp bàyyee dañuy waxul dëgg billahi billahi wallahi du ma ko bàyyi ñaar billahi talaay bu ko daanoon ma bàyyi ñaar ada le grand champion waaw waaw tey bés bi nan ngeen ko dundee li nga xamante ne mooy victoire bi waaw bés bi bés bi dañ ko dundee dañ ko dundee dañ ko dundee bés bu rëy quoi parce que parce que bis bii nii rek la mën a demee. dëgg rek la mënoon demee. ndeysaan cat moo ñëw rek mais papa moo waroon njëkk lii parce que liggéey bu métti bi. bi liggéey rek moom la papa liggéey. combat stratégie. waaw mais lamb i nag isaam lu ma la baax. dëgg la. lamb ju sama xol dafa seet daal mënu ma wax. ndeysaan waaw tey sama xol dafa. am na solo ndeysaan. xam nga yëgal affaire yi. ndeysaan le grand champion moo ngi nii Alioune Seye Junior. man dama ko waatoon. man ma man maa waat ne. tey Alioune Seye bu ko daanul yàlla naa suul sama ndey. parce que dama kaa fu ma ko teg. kii sama waay la. ñëpp maa ngi lay sant. Alioune Seye ñëwal ci li nga bëri. ñëwal ci li nga bëri dimbali ma. Alioune Seye ñëwal ci li nga bëri. boo jinee mënuñu bëree barki demb am am am am am tefet te ñoo préparé ndoo combat bi yëpp trois heures Papa Boy Djiné borom xol bu nice la moom laa tuddee victoire bi Papa Boy Djiné barke sëñ Babacar Si combat bi ñoo ko préparé ndoo billaay wallaay nga doon bëri combat bi mu bëri coow trop ñëpp ne la xale bi mooy tuko lépp moo waxul dëgg mais du maa booy yi du maa billahi du ma ñii. tolof moo ko boole saa waay ak gàllankoor. billahi du ma ñii. billahi soxla naa ko. nga de. waaw jaajëf gis nga sama dégg ku ah. daan soxla naa ko eh loolu jaamo bi nuyoo naa la waaw maa lay delloo ziar bu wér maa am nga jàmm sant Serigne Touba wér wér nan nga gisee grand combat bi waaw neex na combat bi neex la xam nga Siteu moom ñëw na fukk de jeunesse Alioune Seye nax ko jaago yëf yi mag dama daan ko quoi dëgg la waaw di rek di ko encouragé wax xale la na defarwaat rek lamb mu ngi mhm. man Satou Ba la amoon relation na xam nga Satou Ba mooy sama nit quoi moom laa àndal day wax dëgg yàlla moom moom mooy loolu quoi la waroon bëri te bëriwul waaw si da li mu waroon ba li mu waroon def lépp def na ko yàlla moo ko xañ rek waaw li mu waroon def lépp def na ko ah li mu waroon bëree moom la bëree xam mooy xale moo waroon dox ci kaw mu dox mm-hmm. sa waay nax ko daan ko mais lamb la quoi ëllëgu Alioune Junior ci lamb waaw lamb la rek ëllëgu Alioune Sèye Junior moom xam nga mm-hmm. dafa nekkoon ci ay tolof tolof yàlla suñu borom suturaal ko mais si da xale la démilitiw si da na gën a ki bëree daanu na wane li nga xamante ne mooy fulla ak fayda ndeysaan si ta am na lu ko metti mbokk yi champion la ndaanaan la Alioune Seye junior moo ko jox premier défaite am ndeysaan